di sët ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi joxe ay melokaanam ba mu leer naññ naññ naññ naññ yàlla dimbale ñu yàlla moo ñu dimbale ba képp ku ko woote fii ci Sénégal mbaa Soudan mbaa Égypte mbaa ka ko woote woon Arabie Saoudite mbaa ka ko woote Mali mbaa ka ko woote Nigéria ak fu ko waay mën a wootee rek yàlla dimbale nañu ba dara ci màndargaay Mahdi du nekk ci yow ba ci ki nekk fii ci réew mii ñu naan mooy Mahdi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bakkan ba daa taxaw ñu ëpp ñu ko woote seen bakkan yi yàlla da koo noral ba mu mes ni sama bos pour nit ñi yeewu kenn bañ leen a ndax ndax yàlla subhanahu wa taala du yombal ñu nax ab jaamam du ko yombal da koy jafeel ba jaam bi ne man nag dama bëgg ñu nax ma dama bëgg fas yéene ñu nax ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na muhammad lay tudd baayam abdallah lay tudd comme man nee na ci njabootu xasan doomu ali lay doon ñi ko mës a woote yépp kenn du ci shérif ñu ay bambara ñi ay olof ñi ay joola ñi ay lébu ñi ay euh, lu kenn xamul amul ku ko mës a woote ñu seedeel la ci réew ma nga nekk ne rek ci sëtu yonent bi nga bokk xam nañ sa askan ba mu leer nañ ne doo sëtu yonent bi moo tax ba ñu ko woote fii ba léegi doo dégg ñu ne shérif lañu te yonent bi sallallahu sa wasallam nee na ci njabootu alxasan doomu ali doomu fatima sama doom ci descendant am lay génnee yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na jiba dafa yaatu lool yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa wax nañu fa muy juddoo nee na ca Madina lay juddoo wax nañu na muy génnee nee na na muy génnee moom almahdi nee na buur day dee ci gox yooyu le fa yonent ba nekkoon ak saxaabi ridwanullahi alayhim nee na bu buur deewee xëccoo am nee na mu daw moom dem mag laqatu ca Kaaba ga nit ñi fekk ko fa ne ko yow a muy bañ di daw nit ñi ne ko yow la ba nit ñi bari ci moom buur yey xëccoo fële ka ca yore soldaar sa yónni soldaar si ne dem leen ngeen jàppal ma kooku nit ñi dajaloo ci moom naan moo fii jiite muy ñëwee ba ci sabxa muy suuf soo xam ne tan la fu géej mësoon a jaar mu saf xorom yàlla ubbi suuf si dugal leen ci kan moo ci am événement boobu koo ko ci am ci ñuy wax di waxi picc rek ak foowe sa diine bu leen foowe seen diine jaami yàlla yi bu leen foowee seen diine jaami yàlla yi ku jàpp si diineem jàpp leen ci ku foowee diineem diine du foowukaay diine du foowukaay diine du essayé kaay diine benn yoon la am mooy li fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi mu leer naññ léebul léppoonul caxuñu daf ñoo leeralal lépp mu tegal ñu ci baaram nee na mu fekk ne kooka mooy jiite jullit yi mu encercler leen nee